yëkkati démb naam sax tuddul euh, turu Ousmane Sonko waaye ñëpp euh, jàpp nañ ni moom lay waxal. daanu balaa neex dëgg nga am wee. dem nañ ko nañ ko fa dakkal néewoon leen du dem. lay wokkatu balaa neex nga am wee. xam nga ñu nekkuñu pour gérer caprice. xuloo Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko. hey Barth ak Sonko nañu xam ni moomuñu Sénégal dañu yaakaar Sénégal yi. doo ma yaakaar yàpp ma dañuy jaayoon benn principe principe bi dem na ba dëggootul ci ñoom ñu ngi tamante ci mbedd dañ di jàmm ku nekk fa nga yaakaaroon ci wàllu politique nga dem fa euh, bu ñuy def fas parce que li ñu jublu woon ci Yewwi Askan Wi mooy def benn groupe def fas Macky Sall ci yenn dogal yu muy jël wala def ko fas ci am benn man ko gagné ci élection mais fii la mujjee parce qu'il n'est pas seul pour roule pour qui pourquoi ñu précipité après sortie euh, Sonko Barth leader yi def benn daje ci biir ndaje leader yi da ngay gis da ngay xam ci ñoom ku nekk kan la féetee gis itam ci biir ñen ñoo continuer garder principe bi ñu taxawale woon yi askan wi mais dama ne dem manqué wax am ku naan ma euh, dem ci dialogue jotiwul dara ak coalition yeewi aha kay dialogue bi mënuñoo bokk coalition Yewwi ñii ni dañuy dem dialogue ba pour doxal ñii ni duñu dem dialogue ba bu ñu bokkee benn coalition dañuy bokk genn kàddu comme ni ñu ko bokkee woon ci élection locale yi bokkee ko ci élection législative yi gis nga politiciens yi dañu nawloo ñu ñu nekkul ay politique dañu respecté Sénégalais yi ñu jaayoon principe bu Yewwi Askan Wi coalition Yewwi Askan Wi dafa am yeneen coalition yi fi nekkaat donte woon ni wu benn nit la parce que Sénégal gis Sénégal gis Ibrahima xam na ne moom Sénégal gis nañu sax benn benn parti politique boo xam ni day woote boppam day woo boppam coalition ah. gis nañu fi benn parti politique bu wooyee boppam coalition. Sénégal xam nga lu ne am na fi. coalition aar mu ngi foon xamuñu ba xam ba léegi tas na wala déet. Euh, coalition Cheikh Alassane Sall mu ngi foon. Alassane Sène di moins sama xarit boobu ñu ngi koy nuyu de passage euh, di ko ñaanal yàlla mais coalition Yewwi Askan bi la parce que moom moo am doole jooju te ñoom dong ñoo am chance aussi am ci ñaari parti yu ci bokk yoo xam ni demoon nañu ci élection présidentielle muy Ousmane Sonko ak PUR loolu moo tax mu toll nii mu toll tey mais ñi mus ta dem ci élection ci seen parti bu ñu bëggee yëngal coalition bi ñi demoon ci élection am ci expérience bu ñu leen ko bàyyal wàcc nag daanoo ci gën a gaaw yàgg yàgg yàgg yàgg lii xoolal day ñaaw lii fantastique du mettal ci man na parce que xamoon naa ni itam fii lay jëm. wax ci waa Pastef nga xam ne